police bi démb génn nañ bataaxal. Mhm. Euh, ñu ngi jéem a seet rek ndax ndax la ñoo jokkoo ak euh, ku yore kàddu police yi ñu waxtaan ak ñoom taxawaay bi. Euh, waaye euh, ñu génne pour wax ak nit ñi ndax euh, weeri koor bi jeex na ñu ngi war a dem ci korité bi incha allah mais bi suba mais bi ganaaw suba li ci munta am ñu ngi fàttali nit ñi nguur gi ñu xam ne ñu ngi ci wala nit ñi xam ne ñu ngi ci state of emergency président Barrow barki Dembo Ndiaye la ko yokku 21 days ci lañ ne. Mhm. waaye ñu ñu ñu gis di mon ñaan ci waxtaan bi nga xamante ne amoon na ci weekend bi be député yi reject li nga xamante ne mooy. Euh, proposal bu nguur gi indi pour ñu yokk 45 days mooy ñum gis nañ ni taxawaay nguur bi wala ñenn ci ñoom li ñu gisee ni taxawaay bi mooy dafa manqué lu ñu war na enforcer loi yi régulation ba nit ñi respect loolu mm-hmm. loolu amut euh, social distancing bu ñu wax loolu amut soo demee ci marché yi nit ñi yaa ngee jaxasoo di ku ne di def li nga li nga ko daan defee euh, ci yenn yu place yu bari booda yi tëj tëjuñ ko daanaka ñu bari ñu ngi wax loolu ñu ñëw ñu gis tëj jumaa yi rek daanaka ak yi ak ak wàññi daray fay waaye market si ak yeneen bëri yëpp nit ñi faale wuñ mhm. ñu yaa ngee joxante loxo di jaxaso ak yooyu soo ñu gis ne daal loolu nguur gi dañu war a enforce mooy gën a dooleel sarta yooyu police yi nag génne nañ bataaxal wane ne euh, ñu ngi war a euh, gën a taxaw pour enforce regulation yooyu si jamono ji ngay fàttali nit ñi lu moytu jaxasoo bi surtout ci li nga xamante ne mooy julli mbooloo dal dajaloo ci mbooloo yu mel noonu ñu ngi ko tere te ci ñaax askan bi ñu ànd ak loolu ndax beneen taxawaay lañ bëgg a def dafa mel ni ci ci ci ci période bii nii mhm. mun nekk na lu am solo comme noo ko waxee rek lu waatam suñ ko tegee te doxaluloo ko daanaka mooy loolu waaye nag dafa am fu bëri fu mu xalaat mm, nasaxee tuuti mhm. mooy comme si maguette seeg yooyu noonu euh, because lu nit ñi xel mënul nangu mooy maquette yi nu fa coob nu mu bi ak nu dafa joobaloo bi mel den loolu amul ci jumaa amul ci cooj soo ñi tëj loolu nag bàyyi la loolu mooy problème bi soo loolu la nit ñi xel yi moo ci gën moo tax nit ñi gën a am problème si si si si taxaw seetlu gu nguur gi def ni mm-hmm. because amul boo fa demee nag nit ñi tinku duñ dee xalaat sax loolu mm-hmm. da ngaa jóobaloo gi dañ day wóor benn njaay yow pour nga soo buggoon dem pour jot si njaay bu problème la doo mu sa loxo bi sax du mun a dugal mm-hmm. soo loolu nag amul si biir jumaa yi loolu doo doom ci jumaa nga fekk ko fa parce que jumaa ni ñu dee arañee marché arañee wul ko. te loolu nag ku ko mën a ku mën a seetaan loolu ba pare aaye lu nga xam ne nii xëy na dafa dafa organise jumaa ñëpp ay layen def lu nekk su bàyyi coow loolu loolu moo dugg si boppi nit ñi ba nga xam ne nii mënatuñu seen xel nangootu. aaye nangootu ne ni lii. ndax taxawu nit ki rek la. lii ndax sàmm nit ki wéram rek moo tax lii ndax. sàmm fag pour nit ki fagaru pour mucc si corona bi rek moo tax because li nga tere. dañ gis lu ko gën a garaaw mu ngi xàppoon. waaw waaw loolu loolu am na solo su ko defee euh, Mariam yow noo ko gisee parce que démb am na ku ma wax ne dem na marché si rek ne waaye lu mu ci des dafa fel ni sax euh, nekkuñ ci jamono corona virus nee na nit ñaa ngi yaata yumbe ku ne di liggante ne sa sa sa sa korite nu moo nu moo nu moo di mooy neexee nu mooy baaxee. Euh, ci ci ci loolu tey buñ ci tolloo rek ba police bi génnee li nga xamante ne mooy badaaxal mm-hmm. di fàttali nit ñi di wax ak nit ñi ci euh, ñoo bàyyi xel ci régulation yooyu mooy seen taxawaay jamono ji lan nga ci mën a jàngat xam naa ne euh, du ñàkk léegi te rek ñu jokkoo ak police bi bi yow nax nga gisee loolu waaw Amadou pré pré période ci julli lañ nekka te julli moom dafa ànd ak ay bagages waaw te ñun jigéen ñi daal ñoo si gën moo tax ma doon wax ne ñun jigéen ñi ñoo war a jël précaution measures bu baax a baax a baax mm. parce que ñun ñooy dem marché Serekunda bi jàmbaarloo bi yëpp ñun jigéen ñi ñooy dem marché ñun ñooy dem ndugi hmm? jigéen ñi ñoo ñuy jaay déedéet Amadou ñang euh, loolu moom amul werante su marché amee góor sax 50 pour cent ko wax sax 25 pour mooy nekk góor parce que jigéen ñi ñooy dem waaw dem bi moom jigéen ñi la ñoo fa ëpp si ñuy jaay ñun ñooy ñoo ëpp ñuy jaay ñun ñooy dem jëndi bagage yi pour mottali góor benn sa jëkkër doo ko wax ne dama nga dem dugali ba marché loolu amul fen non am na bàyyi ba ma yow sa jabar bu la waxoon ne nga dem marché fii mu ko du pereetu julli bi jàmbaarloo bi am Serekunda mënuloo see dem. Gambien yi da ngay xum sax. Gambien yaa Gambien ngay jël affaire yi am na góor yi nga mm. xamante ñooy duggi indi. waaye du julli boo boo yeexee sax ñu commencé di defar affaire du bu julli bi amal du bu julli bi du ah. loolu dama koy werante bi dugg bu waar bu ka yaa ngi génne topic so comme ñun jigéen ñi ñun ñoo war a jël précaution measures bu baax. su ñoo dem ñu make sure ñu jël face mask soo amul face mask sax. Mm-hmm. suñ kaala yi danga nga ko dee mën a def face mask nga def ko ba mu baax nga fata sali bi nga make sure tamit soo demee looy laal soo demee marché ba nga ñëw nga raxas sa loxo yi nga nga try daal because jamono julli bi la su dee ak coronavirus amul ci dëkk bi wala xëj na benn nit a ko am sax waaye marché Serekunda dafa nekk place bu nga xam ne soo fa demee ba nga ñëw da nga war a moytu bu baax spécialiste Serekunda ak Brikama sax marché waaye comme julli moom Gambie moom marché Serekunda daal lañ lañ jàppane mooy marché oh, waaw waaye marché ñoom Birkama tamit Birkama tamit dam ah, denc ko bu baax a baax a baax waaye soo man lu maa ñaax askan bi rek mooy nen jël précaution measures bu baax a baax a baax especially these two days démb ak tey soo demee marché nga ñëw nga make sure ne nga nga raxasu ba mu set mm-hmm. su si jaree sangu sa dema nga sangu su ko si jaree daal mun nga ko siy def. parce que it's it's coronavirus. very good because bëggoon naa ñu tëjee waxtaan bi foofu waaye xëj na euh, waxtaan bi xaw ma ndax waxtu dañ ne ni ko may nañ jël suwaat si korité bi ci taxawaay kilifa mhm. salibo bi fale ak yu mhm. mel noonu. Ah, ah, ndax situation bi dafa ceeñ loolu bëggoon naa ñu tëjee ko waxtaan bi waaye xaw ma ndax waxtu de ne ko may because ñu ngi ba léegi ñu ngi suñ gars ñu nge liggéey pour. waaw euh, bu fekkee ne yomb rek ñu ñu continuer ñu try beneen ba euh, ok dafa mel ni yëf yi yëf yi euh, yomb na mm-hmm. ñu ànd ak moom we'll move on now next finally we will uh, get to the police PRO because the Gambia Police Force has pledged a firm enforcement of all the provisions of the emergency powers regulations as extended by President Adama Barrow to days The Emergency Powers Regulation came into effect as measures to prevent, control and protect the country from the covid virus after the World Health Organization declared it a global pandemic. In a media release on Thursday, the Inspector General of Police informed the public that enforcement operations are currently ongoing and will be further strengthened in accordance with the law. In this regard, the public is strictly advised to comply with the social distancing regulations and desist from all forms of social regulation or gatherings religious congregations that violate the emergency regulations and potentially endanger uh, the lives of citizens, it stated. Now, on the line uh, from the police headquarters in Banjul is the police public relation uh, of officer ASP Lamin Jai. Uh, uh, thank you very much, Mr. Jai. Good morning, and uh, thanks for talking to us this morning. Um, what sort of enforcement are you pledging as per your press release last evening? If you have been following um, us around, you've well, seen apparently that it looks like um, we've deployed officers to ensure that they patrol and also keep sensitizing people. Are you hearing me? Yes, I, I can hear you. That's that, that's that's okay. Um, well, I. I, I will be, we were just struggling to hear, but we'll move on. Uh, don't worry. Now, what, what is the situation like at the moment? How many arrests and uh, court uh, proceedings have been made? Very well. So far, we have got about, across the country, we've got about 178 that have been made so all categories of cases, for example, in um, um, people who have been hiking prices, that is essentially commodities. We've arrested a good number of them. Um, a, a, good number of these people have already been convicted to several or various fines ranging from um, 20000 to to even up to $200,000. And so we've also, part of this figure, we have got people who are also um, drivers that have been um, increase in transport fares as well as the capacity of their vehicle. And many of them have also been fined um, with fines ranging from amounts ranging from five thousand to five three hundred dollars to three thousand in fact in some cases. And so um, also we have some people part of this hundred and seventy eight that have also been arrested because of the smuggling of essential commodities that they were engaged in all these matters. Although also the same figure you have some cases that are pending trial. Um, but what we want to tell the public is that the state of emergency is still in place and that the police is going to continue enforcing and people who are violating these um, um, provisions of the state of emergency powers regulations will definitely be um, arrested and taken before the court of law. All right. Now, personnel in the intervention unit were found to have misunderstood the presidential declaration leading to abuse of police powers in March. what will be the difference this time? Um, Um, it, it, looks like we, we Can lost. you say that again? I'm not hearing it. Yes, um, if, if you can hear me now, I, I was just trying to... Can you say that again? Say that again so I can hear you. Yes, um, I, I, was saying your, your, personnel, that is, of course, uh, in the intervention unit, were found to have um, abused, um, of course, um, you know, some of the declarations made uh, in March. What will be the difference this time around? Yes, um, I think we, we have to end it there um, due to some issues. Um, yeah, well, hopefully we'll get him another time. Uh, thank you very much, PRO, for your time for, for, for today. And, um, you know, we'll hope to uh, get hold of you in, in, uh, in, um, in another uh, time. Thank you very much once again. Uh, police piaro bi daf doon jéemal leeral euh, waaye euh, jokkaloo bi dafa xala des euh, de ngeen lu indi am na ñi nga xamante ne jàpp nañ leen ba fay ne ne yóbbu ne leen ci kanami lu waa ak yu mel noonu waaye daal bëgg nañu xam ban façon taxawal lañ bëgg a indi this time around you moom waxtaan bi ak yi ko bëggoon laaj laajte yëpp si la comment si doon gën a am solo bot amul tam leneen moo si nekk rek loi boobu loi rek la waaye ñu bàyyi euh, ñaax askan bi tam ñu bàyyi si seen xel rek bu baax a baax bon nag man euh, am na na ñu nga xam ne dañuy jalgati sarta loi corona. ñi comme ni mu ko waxee ñi ñi jaaj leen yóbbu leen koo def si lu nekk. waaw bon am na nag ñu xam ne dañ taxaw. Mm-hmm. ne sarta loolu nga indil sarta loolu amul fi. waaw kooku ñu bàyyi ko ndax ku sol mbubbi politique dafa war a wax li ko neex mu dem wala. ku jëfee yooyu li fi ñu dina. mu ngi noonu.